dal ak jamm mbokk internet yi football TV nuyu naa leen bu baax jeex leen di am mbégte saa su defal leen vidéo wax leen tout ce qui est maillot man ngeen ko am sur football TV au 77 352 31 01 remercier bu baax baax ñi di jënd fan yi di dolé dooleel football TV donc numéro bi moo nekk muy maillot sélection du maillot club man ngeen ko am à 8000 francs donc amna aussi tamit euh, loisir du Sénégal blouson du Sénégal ak blouson yenn club yi donc man ngeen ko am au 77 352 31 01 lii di casquette ak ballon original aussi man ngeen ko am mbokk xibaar dama koy dolé ci Milan bi xamantene ne dafa bëgg ki di Abraham mais Milan que kese nekkul si dossier bi à noter que lii di Everton bi il Ndiaye nekk aussi tamit sur le dossier nous ngi koy suivre bu baax baax ba di Abraham euh, dem ni nekk du côté de Roma dem na beaucoup tout sax si si plan yu dirigeant yu Roma du coup donc euh, mën na dem fu ko neex jamono bi même si ba tey dafa nekk contrat ak Roma à noter que Milan ak quitté di Everton nous ngi koy xëcc ko pour jënd international anglais bi Navas malheureusement de waroon signé signer euh, mais qui am mis de faire Monza la waroon signé c'est malheureux hein, waxoon nañ ne leer na lépp c'est fait mais finalement du mujjee signé euh, du côté de euh, Serie A Italie Jacques O'Brien quitté na lii di Olympique Lyonnais pour Everton mu nekk benn défenseur bu xamante ne l'année dernière dafa gisoon bu baax a baax si équipe bu français bi euh, di ko équipe bi bëri ñoo ko doon bàyyi xel après nag mi di ñaxate ñëw du côté de Olympique Lyonnais waa waa Lyon jaay ka lii di Everton tey jii c'est officiel qui di Varane aussi ñëw na def na premier entraînement avec Comé donc euh, équipe bi xamantene euh Cesc Fabregas fa la nekk moom mii di Varane dina euh, def na euh, premier entraînement keneen ku xamante ne tey lañ ko présenté Palhinha Palhinha bi muy international portugais bi aussi tay lañ ko présenter du côté de Bayern Munich fofu ca Bundesliga mbokk yi Jaay euh, Neves fan yii yëpp ñoo leen koy wax bi xamante ne dafa war a signé euh, Paris Saint-Germain tey euh, taskati xibaar bu ñuy wax l'équipe xamale ne ne vendredi bi normalement si tout va bien si la war a def visite médicale am signé on parle de cinq cinq ans soixante dix millions d'euros plus Renato Sanchez mu xamante ne dafa war a dem du côté de Benfica. Arnaud Lorienté mu nekk benn jour bu xamantene ne nekkoon Lorient donc nekk Sassuolo jamono bi waa Marseille selon Di Maggio waa Marseille ñoo ko bëgg on parle de 15 à 20 millions d'euros mu nekk benn jour bu xamantene ne xam na Ligue 1 française et comme ni mu ko waxee nekkoon na euh, lii di euh, donc Lorient Chelsea veut Michael Moore benn boy bu nekk Tottenham un boy crack prodige du football waa Chelsea nag euh, bëgg nañ boy bi ba tax na il s'intéresse au dossier selon taskatu xibaar wax Zelsen donc Chelsea intéressé wu na si bu baax a baax Yann Konté du côté de Dortmund c'est maintenant officiel c'est fait pour 25 millions d'euros Fanny yii yëpp ñu ngi leen ko doon wax aussi tamit aussi tamit lu euh, lu officiel L'année leneen lu xamante euh, voilà officiel la mooy suñu gagné. bi Mactar Gueye tey maa leen ko doon wax bu donc doomu Medina bi euh, donc jógee du côté de Belgique signé fële ca Championship deuxième division Angleterre avec Blackburn ancienne équipe de El Hadji Ousseynou Voilà wala sax Mame Birame Diouf maa leen ko doon wax tey si suba. Donc c'est maintenant officiel pour trois ans jusqu'en 2027 Nous souhaitons franchement bonne chance pour la suite euh, For Future Angleterre mbokk yi je pense que Jeux olympiques gis ngeen que mais Jeux olympiques dina neex mere naa yi nag moom nañ ñu bàyyi Sénégal ñu jëm rek ñoo ngi nii toog nañu Guinée zéro point la am ba tax na quart de finale yi lii la nar na neex nar na yëngu Argentine France du ma ko tardé problème Argentine France temps yi dafa commencé métti xam naa ne joueurs Thierry Henry ñoom 3 matchs 3 victoires donc euh, malheureusement Guinée dafa toog donc on aura des de finale boo xam ne Argentine France la xam ne moo jël pays ci poulam à noter que Argentine Pulu Argentine moom moo fa jël paie moom USA la de USA moo toogloo Guinée moo toogloo Guinée euh, Japon ak Espagne donc euh, Égypte ak Paraguay donc ñaari équipe africain moo des Égypte donc ak lii di Maroc ñaari équipe yi naar yi Mali ak Guinée ñoom ñoo toog match yu nar a neex donc euh, bientôt mbokk yi euh, Galatasaray bëgg nañ joueur nag benn joueur bu xamante ne euh, jamono bi taxaw nañ ci bu baax a baax pour am ko muy donc joueur bi nekk Manchester United di McTominay pour 13 millions la njëkk a jox offre waa Manchester United dañoo refusé donc ñoo ngi waa Manchester 25 millions lay xaar à noter que le joueur Fulham la gën a privilégié toog Premier League mbokk yi gis ngeen ne tamit euh, suñu gaynde bi Lamine Camara c'est maintenant officiel gis ngeen ko Monaco porté na maillot bi def na vidéo euh, avec Jacobs ak ak ak keneen kii di Krépin Diatta ñu ñu dalal ko si si mën Monaco donc mu nekk benn choix bu xamante ne fan yii yëpp ñu ngi doon wax ne day changer club dina dem beneen club maintenant c'est euh, bi nag muy suñu Ismaïla Sarr moom dafa dafa def visite médicale sànq maa ngi lire c'est fait normalement signature la war a def ñu gis mu seulement Crystal Palace et voilà après jeex na normalement tey jii la ñu waxoon lépp lay jeex mais xam naa bu nekkul tey tamit suba incha allah dinañ gis euh, Ismaila Sarr avec le maillot de Crystal Palace. Mohamed Kamara du côté de Al Sadd moom mii di international malien bi très bon milieu de mais depuis mu wax ne d'accord ak LGBT photo affaire bi gars yi andil ko seytaane comme li ñu defoon Gana Gueye gars yi lu que parce que bokk na si li tax offre bi mu ñëwee ñu ñëw rek tey rek bàyyi mu dem booy bi na propre parce que dañoo euh, salaire dañ ko yokku ñu jaay Mohamed Kamara dañ ko dañ Mohamed Kamara dañ koy souhaiter bonne chance du côté Qatar suñu joueur bi sax. fa la nekk donc muy suñu euh, Abdou Diallo beneen information bu xamante ne aussi mën nañ ko wax mooy euh, tey jii nii Mikayil Ngor Faye mën na dajeek Haaland lan moo ko waral match baa ngi daw nii nii muy Barcelone ak Manchester City. donc match la boo xamante ne nag il est pas titulaire moom Mikayil Ngor Faye maintenant nag bon en deuxième période du si ñàkk Haaland comme que titulaire na est ce duñ daje buñ dajee mu neex ñoo ngi xaar boobule match concerné ñun bu baax a baax intéressé nañu ñun euh, sénégalais yi. Kovacic de priorité selon taskatu xibaar yi nekk foofu ca euh, Angleterre donc The Telegraph mu ngi xamale ne kii di Mourinho nag moom moo bëgg nag euh, Kovacic ancien joueur de Real Madrid nekk euh, Chelsea moom bëgg nag ndax waa Chelsea nañ ko bàyyi loolu question la leneen lu xamante ne dañ koy wax mooy entraîneur bu Chelsea génn na wax sur le cas Enzo nee na Enzo yaakaaru na dina am malaise parce que ñu bëri dañ ko posé nekk ko bu si groupe baru am malaise mu ne loolu réglé nañ ko wax nag joueurs yi joueurs yi wax nañ loolu c'est c'est c'est repassé fàtte nañ ko on va voir nag euh, la suite de l'histoire du côté de Real Madrid selon tey journaliste ni ñu xëyee dañ ne Arda Güler ak kii euh, donc Endrick dañoo teel ñoom ñaar dañoo teel a déggoo dégg nañ selon journaliste yi tey Arda Güler lu mu passe ay passe décisif Euh, donc kii di Endrick kenn xamul nu mu tudd da ko paas muy dugal gars ne ñaar ñi moom teel na yow déggoo li teel na yow miinante donc bi la ay boy lañ ay xale lañ ay ba euh, tey loolu aussi euh, donc taskatu xibaar yu espagnol yi bind nañ si sànq noonu di wax ne ñaari joueurs yi dañoo teel a miinoo dañoo teel a miinante autant pour moi teel a déggoo loolu mën mën na nekk force pour lii di Real Madrid hier je pense que yéen ñëpp gis ngeen ne euh, Kylian Mbappé dafa dafa jënd ay action si si club bi di camp bi xamante ne dafa defoon sax test tey waxal ne wax na tey nag leer na ñoom c'est maintenant officiel on parle de quatre-vingt pour cent dafa dafa am ci yàlla euh, Kylian Mbappé am na xaalis man man joueur yi non jënd club am fa ay action club bu xamante ne Ligue 2 la nekk ça veut dire que aussi kii caaxaanul te xaalisam xam na fu mu koy dugal mais c'est bien quand même c'est bien beaucoup de joueurs def nañ ko Sadio Mané def na ko ak euh, Ibrahimovic y a beaucoup de joueurs yu xamante ne ñoo investi si club et donc mën na nekk lu rentable pour l'avenir Nico Williams au PSG, ça commence à être sérieux les gars. Selon Tasker Khiba, l'équipe, donc c'est l'entraîneur même. Donc indiquer Enrique, moi, je veux avec Jobi, convaincre que non seulement si temps de jeu, convaincre que le projet Bouba File est financièrement par la Dinenka Lior et que l'objectif de Paris Saint-Germain, c'est bien de gagner la Ligue des Champions. Mon bimo deuxième année. Et donc, demi-finale de fond, de faut plus que ça, gagner la Coupe donc loolu mooy objectif bu donc euh, kii di Luis Enrique selon taskatu xibaar yi moom moo dina def kéemtalaay kàttanam pour am Nico Williams.

dafa nekk di ni actuellement à l'heure parle xam ba lañ ci en tout cas beneen af bi di moom donc signé du côté euh, ñu ngi bonne chance mais de la et tout donc si vidéo surtout journal des lions incha allah wala des lions dinañ leen gën a leeral li de manière générale ci commentaires, wax ma seen ak gis-gis leen bu wax su seen football TV.